loolu la yàlla wax ayaam yàlla def ko e, leeral ci alquran ayaamun oxar kooku mooy fani tërqiya bi nga àggee ci yàlla bëgg a joti maqaama ak ayaamun maalumaat kooku mooy fani tarbiya pour nga xàgg ci yàlla ndax ji nga Muusaa bam dikkee xal attabi'uka xaalaa an tu'allimani mimmaa ullimta rushdan kon tuddee na foofa leen xam-xam ndax xel mu luddaniya Euh, euh, Moussa yàlla waxoon na lu ko waral mooy Moussa dafa waxoon ne dafa waxoon banu Israël ne leen xam ngeen tey ku ëpp xam-xam ci kaw suuf ñu ne ko déedéet mu ne man yàlla ne ko nag demal ca géej ga da nga fa fekk sama jaam boo xam ne xamal naa ko xam-xam boo xam ne wàllam naa mi la dunaa yàl man kon nag ndax boo xasee jàpp sikkar bo boo xam ne ci isnul xaas nga ko jàppee keroog nga danga nga commencé xam ci yàlla loo xam ne foogu la ko xoon foogu la noonu nii la tëddee eh, wax leen ko mu kon nag eh, kon ayaamul ayaamul eh, maalumaat mooy fan yi nga jàppee sikkar ayaamu madudaat bi alquran waxoon démb ayaaman madudaatin mooy fan yi ndax hadduna lum yàgg-yàgg fan yi dañ ko limité limité bu jeexee rek mu jeex ci nitu aduna ka ak ci nitu yalla ka yëpp aduna ak euh ayamu lahi wa zakirhum bi ayami lahi, ak nak ayamun ukhar ayam yoy la ko yalla teunk ben bu nek nak ayamu la ayamu eh, ma'lumat moy bi ngay terbiya ayamun ma'dudat moy fani aduna yi ngay jamu yalla wala jamu la ko yàlla waaye rek ayamun ayamu lahi moy fani yi nga da nga jaxaso ak yalla ni sukkar si jaxasooxee ak soow mi ni wëñ koo weex gi jaxasoo ak piis bi nga jaxase ko yàlla foofu mooy ayaamu laayi ayaamu oxar nag mooy fan yi nga xam ne danga koy danga am loo ñàkk euh, bëgg koy wuuti ci yàlla kon safaru baat bi li mooy firi mooy leer wa subhi isa asfara maa ngi génn ci suuf suba bam leerale la la guddi kon safaru mooy firi leerlu su fekkee da ngaa jëm ci pay yàlla bi bëgg a xam nu mu tëddee ndaxte boo xamul yàlla moom ci tëradut rek ci ngay ngay dund bu teye nga ne yàlla ci asamaan sa soo ko waxut itam sa xel moom foofu la jàpp ne fa yàlla ne bu teye nga ne yàllaa ngi fu ne waaye yàllaa ngi fu ne jooju nga ko wax waaye mënoo ko leeral suñ ne loon nu mu fi nexee ci néeg bi ma noo ko leeral suñ maag yàlla ànd waaye suñ la noo ànd ak yàlla anamu yàlla mi nga ànd ak anamu ndax ko ànd ak sa jabar bu ñu la anamu nga ne mi ngi nii ku ànd saak bu ñu ana saak ba nga ne mi ngi nii kon yàlla ni mu réyee ku ak moom war nga koy mën a wane déngi déngi googu nag bu téyee nga ànd ak ci ne yàllaa ngi ci kaw bu téyee nga ne yàllaa ngi ci suuf te wóolu xula ko nga ne daal lii daal danaa ci jog parce que lii wóorut nga jog nag bëgg a xam zaatullaahi googu su boobaa loolu safara la su boobaa na ñu la ah loolu nag moom soo ko bëggee moom ayaamun uxar rek ci ko mën a xamee ayaamun uxar mooy fan ña ca dem ña ca dem nañ nañ fan yañ fan yañ ca nee nañ ca nee woon faaw nga dem ci loola xam nga ne naa la koor mooy bayi li la daganoon ndékke dagan na la naan dagana la ndox mi yaa ko moom jabar ji dagan la xañ bi dagan na ñu la bako ñu la ayaamun uxar nag mooy ñi bëgg a tër bi àgg ci yàlla ñoom dañ bàyyi nelaw kon foog nga dem foofa de daañ bàyyi waxtaan dañ bàyyi lekk dañ bàyyi tëdd ci fu nooy loolu mooy aya fan yooya leen ñuy am foog nga dem ca fan yooya soo demut ca fan yooya doo ko mën a xam loolu moo tax ñu ne kuy tukki fexe dëttun min ayaamin uxar eh, jëlal ab lim ci yeneeni fan kon ku tukki saatoongo ki tukki ci sifa it noonu la mooy bi nga àggee ci yàlla nag ma xam yi ci biit yàlla te xamagula ko xoyof lewet toraxlu tabe xemale ñëpp ci sa xol li nga wax ne man bañuma kenn yàlla ne la wax nga dëgg parce que jëfewulaa kenn jëfi mbañ ko waxulaa kenn waxi mbañ ko kon wax nga dëgg loolu soo fi àggagula ci yooyu te nag bëgg nga ko ñu la nag ah min ayaa min loolu fokk nga demaatu àndaatoog sëriñ bi beneen àndooxin boo xam ne ca nga koy mën a jotee waaye du rek ngay toog kon nag loolu mooy ayaamun oxar loolu mooy tukki gi tukki ci saatu ak tukki ci sifa il faut nga bàyyi ya nga newoon dem ci yeneen yu bees yoo xam ne yéen loolu mooy su cee cee mën a jotee ñu ngi tëj foofu maa ngi ñaan yàlla eh, eh, képp ku ma déglu ren yàlla nag ma déglu diwén diggante bi bul am jafe-jafe ci sa bopp ci sa njaboot ci sa lëggéey ci sa wér yaram yàlla yàlla dindi musiba wi mu teg xadduna bi maa ngi koy ñaan mu dindi ko ci barkeb ajjuma ak mbóot mi nga xam ne li jaaba mbóot guddik ajjuma gi ci ne yàlla di ci nangulee ma ngay ñaan mo nangulee ñu ci yëkëti fitna ji yobbu ko fam ko jëlé won mu jik julli di lol bu paré xéeféer si yëpp xamné ak ñi hando ak xéeféer si ci xilaat ñom ñëpp ñu xamné mbir mi kat fa dikkon pour dimbalé si julli di julli di ando nañ yu seen ak ando yokuna seen warsa ak yokuna ko leen doon ci warsa kat soy bo nga def ndank parce que am nañ warsa gu bes ma ngi ñaan yalla bu ko dindé mu may julli di maqama bi ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke weeru koor maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla dolli leen jumtuwaay yu ngeen di eh, arrêté xam-xam yi nga xam ne ku ko déglu mu jëriñ la sa diina jëriñ la sa tariixa jëriñ la ci sa suufiyanke yal na yàlla dolli jumtuwaay yooyu yéen ñëpp nag rawatina Baye Cissé Lamine mi nga xam ne moo sos lii moo ko xilaat ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko ay xilaat yoo xam ne day ànd ak mën a jëf xilaat dana ñëw waaye tëlee jëf tax du mën a génn <clears throat> man man man dana am waaye ñàkk xalaat tax man lay jëf ku yàlla boolanteel yaar yi mu ngi mel ni chargeur bu bees pull de rooflanteeg portal bu bees pull teñ bokk numéro génne njëriñ nga day gaaw ci barke yonent yàlla Umar allahumma salli ala Muhammad